في كل سار وفي ظفر حماني ألا ماهٍ مع الأبصر والسفر muy tomb bu ama am solo boo xamante ni eh, war nañoo xam ni sunu jullite Sénégal eh, bu njëkk ñépp benn lañ woon ñoo bokkoon benn pas-pas bi muy al al-ashariya eh, ñoo bokk nu ñu dunde seen diine ci wàllu fiqh muy ngirum imam malik ñoom ñëpp it ay tariqa lañ woon ci noonu kilifa yu mag yiñ fi xam yëpp Cheikh Omar Foutiyou Tall Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ak ñeneen ñu du ñoom ci julliti Sénégal yi ñoom ñëpp ñoo bokkoon nu ñuy dundee seen diine diine l'islam dëgg la biñ demee nag ba jëmmi jamono am ay nit ñoo xam ni ba doomu réew mi di tàmbalee jàngi rawatina ñuy jàng ci kàllaamay arab di dem ci yenn réewi arab yi dafa jàng ci seen université yi di jonjoog yeneen kuréel foofa eh, bi ñu dellusee la yenn mbir yi tàmbalee feeñ ci biir réew mi ñu tàmbalee indi yeneen gëm-gëm yeneen pas-pas ren ji it ñu jël thème bu am solo mooy mazhab bi nga xam ne moom la suñu mag ñi tënku woon ci wàllu fiqh muy yoonu ngirum imam Malik ban solo wala ban wàccuwaay wala ban taxawaay la war a am ci luy gën a jegale jullit ñi rawatina jullit ñi nga xam ne ñoo nekk Afrique ndax xam nga saa bu gisi nii bokkee wala mu jegee ci wàllu diine rek jëflante bi day gën a yomb loolu moo tax ñu ne nag lii bokk ci ponk yi nga xam ne yi ñu donnoo ci mag ñi la kon war nañ ko mën a waxtaanee ren euh, loolu moo indi solo suñu tànn thème bi ren ñu di ko waxtaanee ci anam gu yaatu ndax danañ ko waxtaanee ci ni ko Sénégal dundee ak niñ ko dundale ni ko Mauritanie dundee ak niñ ko dundale ni ko Maroc dundee ak niñ ko dundale nga xam ne kon thème bi am nañ ci ñaari jubluwaay ba ñett bu njëkk bi mooy bëgg nañ cee xamle dëgg-dëgg ngirum Imam Malik mooy lan ban wàccuwaay la am ci diine ban solo la am ba ñi ko jàpp xam ne li ñu jàpp lu wér la ñu gën cee jàpp xam nga ñun fii rek Cheikhul Khadim radiyallahu anhu digaloon na ko ay taalibeem ba ne leen aleykum bil malikiya fa innaha mutaharatun munawwara yéen maa ngi leen di dénk ngeen jàpp ci ngir mu malik ngir mu sell la ngir mu wér la moo xam ne ku ci jàpp jàpp lu wér day loo xam ne ci doxin ci diine euh, ngir yi dañoo bari menn réew bu baree ay ngir yu bokkut mën naa waral ay juyoo mën naa waral sax bu ñuy àtte àtte yi di wuute gis nag ne bu ñëpp maasee tënku ci ngir mi day tax ñu gën a déggoo waaye day tax ñu bokk nañu xalaate ndax àtte yëpp ñoo ci bokk fi istis loolu nag lañ bëgg a dëgëral ginnaaw bu ñu fekkee mag ñi liggéey ci ndax yàlla dogal na bi lislaam di dugg senegal ci rythme Malik moom la fi duggee mag ñi fi tasaare diine jëpp ci ngir moom lañ nekkoon moo tax gis ne suuxat ko dëgëral ko wan nit ñi solo si am ba tax déggu gi am ndax fi ne tey ci jaamu yàlla nga jóge fii kër bu ko dem yéen a bokk nu ngeen def ndax yéen a bokk ngir bi yi wuutal léeg-léeg ba mën leen a jooyal du ci am ndax yéen a ko bokk loolu bokk na ci solo si nga xam ne tom bi am na ko. rôle bi nga xam ne am na ko ci mën a boole société africaine yi loolu ngir leeral ko rek dañuy wax ne xam nga wuute ci ay xalaat dafa mën a indi ak juyoo ci ab société rawatina xalaat yu jëm ci diine. gis nañ barab yoo xam ne dañuy wuute ci ni ñuy jullee rek indi leen jafe-jafe gis ñoo xam ne dañuy wuute ci ay point de vue ci yenn question mu indi leen ay jafe-jafe ñii ne lii la ñii ne lii ndax dafay laal léeg-léeg seen pas-pas ñu gis ne nag réew mu nekk ginnaaw lislaam bi bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fii nekk amutoon ay ngir amutoon li ñuy wax ngir ndax yonent bi moo doon jàngale diine diine di pas-pas ak ni ñuy jaamoo yàlla ak niñ koy rafetale ni mbirum jikko pàcc bu ci nekk ak am xam-xam boo xam ne moo koy jàngale li nga xam ne moo jëm ci pas-pas li ñuy wax tawxiid moo koy jàngale xam-xamu tawxiid li nga xam ne moo jëm ci ni ñuy jaamoo yàlla nag ni ngay jullee ni ngay wooree ni ngay jaayantee ni ngay jëndante loolu xam-xam bu wax fiq moom moo koy jàngale li nga xam nag mooy jikko yi ak li nga xam ne mooy euh, ni ngay def ba sellal say jëf li ñuy wax tasawuf moo koy jàngale mooy ay xam-xam xam-xam yooyu nag bi dafi yonte bi nekk binduñu ko woon ginnaaw yonte bi sana sallam la saxaaba yi tasaaroo ci àdduna bi fenn fu nekk saxaaba ba fa nekk ña fa nekk di roy ci yow di jàng ci yow moo tax nag école yi xawa wuute ndax yonte bi it bi mu jàngale nit ñi dañ daan wuute mu bàyyi leen ci wala mu saxal leen ci léegi nag loolu moo waral ay ngir juddu salaatu lazi fi kulli sahrin li tax ñu indi forom bi jàpp ne thème biit it lim gën mën a jegalee jullit ñi bari na bokk na ci jiitu xam nga lislaam fi mu ne fu àgg ci ay coow ak ay jafe yu bare bari li ko indi mooy ay déggin ay déggin yoo xam ne xan yi ci ëpp ay déggin yi njuumte lay doon ay nit maanaam nit dana dugg ci barab jël bakkanam jëlaal bakkanam wala ñu fa nekk te ci pas-pas la ko teg déggin yu am ci diine moo moo moo moo juunu déggin yu juunu yooyu noonu nag lii bokk na ci li koy saafara ak it ñu fexe ba ñu fa teew ñëpp ku ne jàppal sa morom ngànt te ku ne xam ne ku ne mën naa bokk nekk ci ñun ñëpp ku ne mën naa nekk ci dëgg ñu ñëpp ku mën nañoo wuute ay gisin te ku nekk nekk ci dëgg ndax lool it bari na ay jafe-jafe yu mu indi ci biir jullit ñi am na ñoo xam ne jàpp nañ ne liñ nekk ku ci nekkul nekk ci dëgg te ci biir lislaam dafa am ñeenti ngir yoo xam ne muy ngirum imam malik ngirum imam shafii imam hanbal ak imam abu hanifa kenn ku nekk ci ñoom euh, am nga sa ngirum bopp te gisi ni li ñuy wute yëpp teewut koo ci dellu ci ay mbindam dafa nangul moroomam lool kon dana bokk ci li ñu gën a mën a jaare ci lii ngir wane ne ñu ne lañ nekk mën naa nekk dëgg te ku nekk jàpp ci li nga jàpp. noo xam ni jullit Sénégal dafa am lu leen boole yu bare bare bari ci wàllu pas-pas ci wàllu fiq ni ñuy dundee seen diine ak ci wàllu tariqa euh, yeneen ñi ci des nga xam ni gëmuñ yooyu. ñu néew a néew lañ fi te yàgguñ fi lool lool mag ñee leen fi jiitu fopp fopp fopp ci biir réew mi su ko defee nag yooyu buñ ko xamee dana am solo lool ndaw yi ñi nga xam ne fu nekk nii ci ñooy ñu ëpp ci askanu Sénégal euh, ñu xam loolu bu baax a baax euh, sàmm ko xam ne am nañ ci wàll ngir mën koo jottali ñii di ñëw ëllëg. bokk na ci li li boole tariix yëpp ci Sénégal tey mooy ngirum Malick mi ñoom ñëpp ñëpp ci ngir bi lañ dëkku ndax fi la diine wàcce woon mag ñi ci la moom lañ jàngee ki lañ yaroo xëy na bu amee yeneen kuréel yu tënku yeneen ngër ginnaaw bi la waaye ngir yu mag yi ne ci yoon yi moom ñe ci réew mi yëpp ci ngëru Malik lañ tënku ci pas-pas it ñoo ko bokkule mazhab Malik nag fii comme fii moom état yi laïc amul mazhab bu officiel waaye mën nañ ne état africain yëpp mën nañ ne mazhab imam Malik moo fi tasaaroo woon taxoon na pratique yi nekk benn juyoo daanaka amul fii moom buñ juyoo ci ñoo bokk nu ñuy jaamoo yàlla ndax fiq biñ jàng benn la ñu ne nag loolu kon dafa bokk ci suñu identité boo xam dañ ko war a sàmm bu àdduna ubbi ko yeneen mazhab di ñëw loolu mu ne su koo tere ndax xalaat yi dafa ubbeeku waaye waa réew mi xam ne am nañ mazhab boo xam ne ki ko sos jële ko ci njàngalam yonent bi madina la dund fukki at ak nangam euh, nekk fa di ko di fa jiite euh, maanaam fi nga xam ne yonent bi dund na fi fukki at moom fa la nekkoon dundanteeg taabiin yi àndoon ak saxaaba yi kooku mazhab bi mu yor mazhab bu wéer la boo xam ne mag ñëpp ci lañ tënku woon kon sàmm mazhab boobu nit ñi xam ko dana dana tax nit ñi jaamoo yàlla gën a nekk benn ñu gën a déggoo du am ak juyoo salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala maahin maal absa wa safar bu dee yoonu murit daay ñëw ngir sax sàmm loolu suuxat ko sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu mas nañ koo fekk muy def loo xam ne dafa mel ne daa wuuteeg li xam ci ngër bi waaye bañ ko laajee dana leen yéen mazhabu Maalik laa leen dénk ma ngir mu yàlla dafa leeral la mu mu mu dëggu la su ngeen ma gisee may def lu wuuteeg ngër mi loo xam ne gisu leen ko ci ngërum Maalik yéen na ngeen ci tënku man am naa ay jagal yu ma yàlla jagal yoo xam ne du ma leen ko digal kon moom mooy teel naa joxe ne yéen ndigal li mooy tënku leen ci ngir ni ngeen di jaamu yàlla ak euh, atte yi aju yëpp nañ ko tënku ci ngëru Maalik ndax loolu moo ne ci réew mi yeneen kër yi noonu la mel nga xam ne kon moom ya yàlla jagaleel mu koy def léeg-léeg wuutee ci ngir ñi waxut nañu roy ko ca ndax bu ñu ko doon roy dañuy wuuteeg réew mi te moom loolu ci mbirama mbirum bopp ma moo tax mu yem loo ñu ci ngir mi moo tax nag kilifa yi naka jekk taalif nañ ci ay téere yu jeex daara yi fi jàngale yëpp ci géej gi la jàngale kër yi fi attee nga xam ne dañ daan joxe masal di iftaal di ubbee nit ñi ci diine ci géej gi ko tënk loolu rek euh, jar na bàyyi xel masalan tey jaxasoo gi am ci adduna bi tey tax léegi menn masala nga gis waa joxe day ñëw laaj la lislaam atte nga tënku ci ngëru li wax ko atte mu génn dem laaj keneen keneen tënku ci meneen ngir wax ko beneen atte lu déggoo du am hmm. moo tax nag buñ maasee tënku ci ne ñun kat dañuy atte waaye ci ngirum Malik sëriñ moom booleb atte yi mu la di ko sant njaboot ñu di ko atte ci ngirum Malik la fii tey Tuubaa bépp liggéey bu atte bu ñuy atte ifta yi dégg gis yëpp ñu koy ubbee kenn du ci génn ngirum Malik boo ko delloo ci biir boo koy contextualiser ci biir murid gi it man nga ne rek jëfee ndigalul Cheikhul Xadim na radiyallahu anhu warda buñ delloo ci mbindam fu ne soññ na fa waa këram ci ñu bennoo ak jullit ñëpp départoon na ci njëlbeen ga ne leen képp ku ngeen gis muy wax laa ilaha illallah bu leen ko jàppee am noonu fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah képp ku ngeen gis muy wax laa ilaha illa allah na ko jàppee mbokk bu leen ko bu leen ko defum noonu loolu rek mooy kooku woote na ci ne ñëpp nañ nekk benn fu mu tollit daa ñaan suñu borom ci ne ko jullit ñëpp na leen def ñu nekk benn ba bu ñu demee ci mat la bu shifaay muy wane ne di ñaanal jullit ñi banaan ko suñu borom kat jullit ñi li nga xam ne saa boo leen gisee ñu def lu wuuteeg seen digalit xamal ne bak seen bakkan lañ lañ topp rek waaye xam nañ ne yow yaay ki nga xam ne yaay ki mat a jaamu yaay ki mat a jëfe sa ndigal kon maa ngi la ñaan nga defal yër nga defal leen yërmande googu nga xam ne soo ko téyee seen dara du yàq te boo leen ko joxee du la wàññi dara waaw maa ngi lay ñaan yërmande googu nga xam ne yow soo ko téyee ñoom seen dara du yàq moom te boo leen ko joxee du la wàññi dara kon maa ngi la ñaan nga jox leen ko fu mu tolli daa wax jullit ñi ci ne nañ góorgóorlu bi ñu demee ci mbindam am na fu muy wax ne mi ngi ñaanal jullit ñëpp ñu am jàmm ak xéewal daane mi ngi xamle it ne lim yéene jullit ñi ñëw jébbalu ci moom mu ay taalibeem lim leen yéene loolu la yéene jullit ñi nga xam ne jébbalu woon ci moom loolu Cheikhul Khadim moo ko bindal boppam loolu kuy wooteeg benno foofu la benno ma ne wane na ñi ñëw jébbalu ci man li ma leen yéene ci lu baax li ma leen di ñaanal ci lu baax it loolu laa ñaanal jullit ñi nga xam ne aju wuñ ci man su ko waxeewutoon noonu it danañ ko mën a déggee ci mbindam ndax boo demee ci mbindum sëriñ bi li muy ñaanal jullit ñëpp nga xool li muy ñaanal jullit ñi ak li muy ñaanal waa këram li muy ñaanal jullit ñi moo ëpp muy ñaanal waa këram képp moom bi mu fi nekkee dafa gëmoon rek ne ndimbalu suñu borom ak yërmandeem ju mu wàcc ci kaw suuf la ñëpp bokk ko moo tax gis nga tukki bi li muy rëy rëy dana woon suñu borom bu ma ñibbee na doon na doon na doon texeeg mboolem ña ma ña ma bokkal dëkk ijaan rujuu'i ilaa xawmi saadatana waxoo it ne ko lii kon bikun sarmadan wajaal masiriasa jaw falfara lil wara sama tukki bi lu ma ci jële na ko mbindeef yëpp bokk na ko ñëpp bokk moo tax ngay gis mu ñaan yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jamial wara yow suñu borom yow mi nga xam ne yaay boroom nguur gu mat gi te weesu nga fooy fayantoo maa ngi lay ñaan nga yërëm mboolem ñi nga xam ne ay mbindeef la ñëpp rek te loolu kenn génn ci sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu da cee bind lim bind ci fiq lu bare bare bare la mais lépp ci fiq imam malik la ko la ko la ko bind ci mazhab boobu la ko bind muy rit malikit bi waaye yemu ci mu dénkaane ne na ngeen jafandu ci na ngeen téye mazhab imam ndax lu laab la lu leer la lu dëggu la te loolu ñun ku ne xam ne ne sëriñ moom dépos dépassé woon na ay mazhab moom maanaam dimension wees na mazhab waaye xam na ne ñëpp maase tënku ci mazhab bi mooy indi ak déggoo mooy indi cohésion loolu moo taxoon mu digle ginnaaw moo fi not ñëpp mu ngi fi ca baax na jërul ko di fa bàyyi di indi beneen mazhab moo tax kon loolu moo indi ñu ne kon euh, nañu leeral loolu nit ñi xam ko waaye nag ñu wax ginnaaw mazhab bi Sénégal rek bokk ko waaye bokk nañ ko ak bokk nañ ko ak bokk nañ ko yeneen pays moo tax foofu ay boroom xam-xam dinañ ñëw sax leeral li jëm ci ñoom it lax liggéey bi nga xam ne liggéey nañ ko ci mazhab imam Malik mu doon loo xam ne day tax ñu am déggoo ci xalaat am déggoo ci ay pratique am loolu danañu pré danañu épargnel ay werante ak i xulo yoo xam ne mën nañ ko consacré ci xalaat leneen luy jëmale kanam société bi salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala maahin maal absa absa wa safar